waxtaan yi nga xam ne moom lañ leen di defal ci wàllu askar xam ngeen ne ci bu njëkk bi waxoon nañu lan mooy askar ak lan moo ko waral ak ngëneel yi nga xamante ne askar mën na ko indi borom bi tabaaraka wa moom ci boppam waxoon nañ leen ne ci aaya ba nekk sootul baqara ne leen moom ci boppam moom moo santaane ci aaya alxuraan yu bari pour ñu di ko tudd bi ñu mujjee woon a wax ci bi nga xamante ne mooy ci numéro 1 bi dafa waxoon ne fazkuru nii azkurukum washkuru lii wala takfuruun mu ne dee leen ma fàttaliku ma leen di fàttaliku dee leen ma sant te bu leen ma weddi kon bokk bokk na ci di ko weddi sax yàlla defal la ay xéewal nga di ko weddi di wax leneen lu bokkul ak li nga xamante ne moom mooy li nga war a wax ndax borom bi tabaaraka wa dafay wax ne wa ma bikum min nicmatin fa min allah bépp xéewal bu ngeen am sante leen ko borom bi tabaaraka wa ndax moom mooy ki nga xamante ne moom moo leen ko jox kon bokk ñuy delluwaat di wax alhamdulilahi rabbil alamin ba tey ci li nga xamante ne moom mooy aayaat yi borom bi tabaaraka wa taala ngi wax ne yaa ayyuhal lazina amanu uzkuru llaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila mi ngi wax ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla yéen yi nga xamante ne bu yàlla waxee ngeen nangu yéen ñi nga xamante ne bu yàlla teree ngeen bàyyi mu ne dee leen fàttaliku yàlla lu baree bari bari bari bari te ngeen koy sàbbal guddi ak bëccëg di ko sàbbal bokk na ci di ko tudd di ko sant ci li nga xamante ne mooy xéewal yi mu la jox di ko sant ci lu baree bari bari ndax yenn saay nga génn gis sa morom boo xamante ne ni mu mel ni ko yàlla bindee suñ la waxoon ne la kaay ñu may la ay million ñu def la noonu dangay bañ yenn saay nga gis sa morom boo xam ne mi ngi ci situation boo xam ne yow boo génnee rek dangay sant yàlla tey ku dem hôpital rek xool ñi nga tëdd ñi fa tëdd waxuma la dara waaye nga dem urgence rek dangay daal di sant yàlla bu baax a baax ndax euh, ci wérgu yaram bi nga xam ne may na la ko nga jóge fi dem fi nga xamante ne moom mooy ca armeel ya nga daal di gis ñi fa tëdd xam ne ñoom amatuñu benn chance ci tudd yàlla amatuñu benn chance ci lépp loo xam ne defuñu ko woon ba tëdd foofu dootuñu ko dabaatal yow nag yàlla may la chance boo xam ne ñàkkul ne am nga xarit boo xam ne yéen a doon ànd guddeeg bëccëg mu ngi fa tëdd lu mu sax la ay ñaan waaye yow yàlla may na la beneen chance boo xamante ne bépp rëcc rëcc boo xam ne defoon nga ko mun nga cee dellu si waat tuub ko daal di koy remplacer loo xamante ne lu baax la ndax la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne ittaqillaha haythuma kunt mu ne ragalal yàlla fépp foo xam ne rek yaa ngi fa même boo duggoon ci néeg tëj ko tëj palanteer yi wàcc rideau yi yaakaar ne yow kenn rek yaa fa nekk jàppal na nekkoo fa yow kenn ndax lan borom bi tabaaraka wa mooy wax ci alquraanul karim muy wax ne ma maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mu ne amul benn baat boo xamante ne yaa ngi koy wax lu dul malaaka yi ñu ngi koy bind kon boo jàppee ne yow kenn rek la du yow kenn boo génnee ci biti jant baa ngi fa weer baa ngi fa sa taqandeer a nga fa kon yàlla def la booleek ñoo xamante ne ci màndu téem ñàkkul ne daf ko mën a bañ a daf ko mënul foglu de ndax yàlla mu ngi naan inna allaha kaana aleykum raqiba yàlla mi ngi leen di foglu fu ngeen toll waaye jàppal rek ne màndu téem rek dafa dem ba ci loolu kon boog euh, li muy wax ne euh, dee leen ma sant guddi ak bëccëg yéen ñi nga xam ne dangeen a gëm yàlla di ma tudd guddi ak bëccëg dafa war ndax saa su ne yàlla wan la wala nga jëflanteeg loo xamante ne soo paree yow doo bëgg wax lu dul alhamdulilahi rabbil alamin ba ma génnee ci lii wala alhamdulilahi rabbil alamin ba ma lii dalulee wala alhamdulilahi rabbil alamin ba mettit bii teggeeku ma kon da gis sax ne ci wàllu jaamu yàlla lépp looy tàmbali rek bismillah lay doon waaye soo dalalee rek soo soo daanoo rek nga wax alhamdulilah ndax lan sant yàlla ndax am na koy tàmbandeeloo koo xamante ne yéen a tàmbaleendoo waaye yeggalewul masalan weeru koor bi ñuy jublu si am na ñoo xamante ne ne yaakaar nañ ne dinañ ko woor waaye mën na am sax buñ nee suba la koor gi ñoom ñu dem ci guddi gi yàlla ñu yàlla may ñu fekkee ko te tal ko mu nangul ñu bépp jaamu yàlla boo xam ne def nañ ko fa loolu sax ci tudd yàlla la bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw di feddali loolu di wax ne est duma leen digal wala est-ce que duma leen xabaare loo xamante ne moo gën ci jëf bépp jëf boo xam ne yaa ngi koy jëf te mu gën a maanaam sell ci lépp loo xamante ne yow yaa ngi koy jëf di yëkkati nag li nga xamante ne moom mooy seen daraja mu ne mu gën sax ci koo xamante ne dafay sarxe oor ak xaalis xam ngeen ne mbokk yi loolu rëy na mu ne te loolu sax dafa gën a rëy nga dajeek say noon di xeex ak ñoom nga rey leen wala ñu rey la te ku nekk xam na ne boo génnee àdduna ci yoonu yàlla dangaa shahid kon bu amee lu ko gën nañu teewlu te déglu loolu lan la mu ne euh, saxaaba yi ne ko ankay parce que ñoom dañuy bëgg ñoom dañu njëkkante ñoom su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ak ñoom di leen dig di leen conseiller même bu fekkee ne ñoom xam nañ ko seen yar ak seen teggin daf leen di may rek ñu ne ko ankay déglu ko mu ne leen zikrullahi taala hadis boobu Tirmizi moom moo ko solo mu ne zikrullahi taala mooy tudd borom bi tabaraka wa taala di ko tudd saa su ne di ko tudd fu ne nit dina tudd borom bi di ko sant di ko bàkk di ko kañ ba sax buy dox ci mbedd mi bu gisee sax benn bant bant boobu dina ko jàngal lu baree bari bari ci borom bi tabaraka wa taala ndax kan nag bul fàtte ne borom bi tabaraka wa dafay wax ci benn aaya boo xam ne dafa nekk ci suratu Ali Imran dinañ ci ñëw incha allah di ci wax lu am solo loo xamante ne ne dafay fàttali ñi nga xamante ne dañuy dox dañoo tëdd fu ñu mënti nekk seen xel mu ngi ci borom bi tabaraka wa te nag ci li nga xamante ne moom mooy li gën ci li nit ki mën di fàttaliku borom bi saa su ne mooy muy fàttaliku ni mu ñëwee ci àdduna waaye di fàttaliku tamit bés bu génnee àdduna lan mooy xew kon borom bi tabaaraka wa taala mu ñuy delloosi ci fi nga xamante ne moom mooy suuratu Ali imraan di ñu euh, wax melokaanu ñi nga xamante ne dañuy tudd yàlla ak ñi nga xam ne dañoo am xel di xalaat ci borom bi tabaaraka wa taala mu ne baada audu billahi min alsheytaani rajim inna fi xalqi alsamawati wal ard waxtilaafi leyli wannahaar la aayaatin li ulil albaab alladina yadkuruuna allaha qiyaaman wa quudan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi alsamaawaati wal ard rabbana maa xalaqta hada baatila subhaanaka faqina azaaba annaar sadaqallaahu alazim mu ne nekk na ci fi nga xam ne mooy bindu asamaan ak suuf bindu asamaan ku ko xool borom bi tabaaraka wa dafay wax ne wëndeel leen seen bët ngeen xool fi asamaan nekk ndax mënoo xool commencement bi ak jeexantal bi ndax xamoo fan la moom ak suuf ñoo yam xamoo fu mu commencé xamoo fu mu jeexee waaye bokk na ci seeni kéemtaan ni ñu tàllaloo bokk na ci kemtaanu asamaan jant bi ak weer bi yenn saay da ngay dox boo téenee da ngay foog ne jant bi daf la topp keneen jëm beneen sens ne man kay dafa mel ne man tamit jant bi dafa ma topp yow nga jëm côté bii kii jëm côté bi yéen ñaan ñëpp benn weer moo am loolu dafa bokk ci ay kémtaanam bi ci des mooy dafa bokk ci kémtaanan nuage yi maanaam bu waree taw nuage yi nga xam ne ñoo nekk ci asamaan bi nga gis ni ñuy soppalikoo ni ñuy changé ñoom ñooy indi taw te laalantewuñu ak asamaan bi ci des mooy biddéew yi dangay xool biddéew yi yenn saay duñu nuroo yenn saay nga xool benn biddéew mu mel ne dafa am couleur yenn saay nga xool benn biddéew mu lay jàngal lu baree bari te biddéew boobu suñ la waxee ni mu toll danga naan déedéet moo ëpp suuf danga naan déedéet ndax rëyaayam yow nga koy xool mu nekk lu mel ni benn tomb wala benn toq ci kaw asamaan bi te fekk na lu rëy la loolu bokk na ci kémtaan yi nga xam ne kémtaanu asamaan la bari na tey loo xamante ne mën nañ koo wax ci asamaan tey couleur bi nga xam ne bi ñu juddoo ba tey moom la ñuy gis couleur bi mësta xomaat couleur bi mësta changé bleu bi nga xamante ne moom lañ ko xamee moom lañ ko xamee ba tey borom bi tabaaraka wa mosul ñaan kenn intervention ci lu jëm ci wàllu asamaan si mustaxar suuf bu ñëwee tàllalu nga ciy def lu la neex di ci dox di ci bay loo lekkee di ci tëdd di ci doxi say soxla di ci gas di ci di ci di ci génnee pétrole di ci génne or di ci génnee jamaa di ci gasteen di ci naan ndox mu nekk lu am solo loo xamante ne nit ku nekk danga ko war a bàyyi xel kon ci kéemtaan yoonu yooyu incha allah la ñuy yemale li nga xam ne mooy waxtaan bi di leen jox dig daje ba beneen yoon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu